revue de presse bi ñoo ngi ciy ànd ak Serigne Khadim Mbacke général Serigne Khadim Mbacke général nag sët la ci Cheikh Mouhamadul amine Baara Mbacke nekk sëriñu lasraar bu yàlla may lasraar nag bu ñu ko waxee lépp ngi ci moo xam wàllu noob ak wàllu ñaan sëriñ bi yàlla may na ko lool ci wàllu woowe waaye sëriñ bi dafa am ñetti jaaru yu doy waar ba ca njëkk nag mi ngi tudd mulku suleymaan mulku suleymaan nag ñi yëngu ci lasraar war nañu koo xam mu nekk jaaru bu baax lool sëriñ bi am na yeneen jaaru yu doywaar képp ku jokkoo ak moom dina la ca jox ay leeral sëriñ bi nag yàlla may na ko lool ci góor ñi nga xam ne dañoo tële maanaam ñi dem ba mënatuñu ak ñi nga xam ne dañoo gaaw a yëg seen bopp nee na saafara bi mu lay jox ci kaw cin ngay taxaw sangoo ko foofu ngay yëgee sa bopp kon jokkoo leen ak moom waaye sëriñ bi tamit yàlla may na ko lool ci wàllu seet ak wàllu kubbeekaay ndax ngit nit ki kat pour ngeen jëflante faaw mu seetal la ba noppi te wàllu seet ak wàllu ñaan ak kubbeekaay noobit yàlla may na ko ci lool moom sëriñ xaadim mbàkke général wàllu nopp boobee nee na képp koo xam ne da nga am sa soxna wala sa coro boo ne ko benn mu ne la fukk boo ne ko toogal mu taxaw bu ngeen jëflantee dina dëppale seeni xalaat jubale leen boo ne ko toogal mu toog boo ne ko nañ dem du ca teg baat sëriñ xaadim mbàkke général yàlla may na ko lool ci wàllu lasraar sëriñ bi nag képp ku bëgg a jokkoo ak moom ci numéro bii nga ko mën a jotee muy 77 341 67 67 77 341 67 67 képp ku jokkoo ak Serigne Khadim Mbacke général yal na sa aajo faju laata ñuy dooru revue de presse bi ñoo ngi wéy ba léegi di leen présenté application bi tudd SofaScore maanaam di leen gën a xamlante ak application bi ndax day yëngu ci wàllu tàggat yaram rawatina football match yi nga xam ne day daw en direct képp ku am application boobee dara du la ci umpo rawatina programme yi ñu dëgmal ak xabaar yi soxal tàggat yaram ba ci football Ligue 1 bu Sénégal ak juróomi championnat yi gën a mag ca dénduk Europe ba ci Ligue des bi Ligue Europa Ligue conférence ak yeneen championnat yi am ci àdduna gépp la ci umpo waaye tamit soo ko bëggee li ngay def moo di jaaree ko ci lien bi lien bi dinañu ko def ci description bi ak ci commentaire yi su boobaa tamit di nga jàppale waale King Ouse Ngary TV ndax application bi dafa lëkkaloo ak chaîne YouTube bii ñu door revue de presse bi dooree ko group Futur Média fekk fa record yéene kay ñancoo Sadio Mané la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa doomu Sénégal bi nag jamono ji moo boot waa Al Nasser li ko waral moo di mi ngi doxal ak ñoom bërki démb Al Uruba lañ doon jàkkaarlool duma ko ñetti bal ci dara doomu Sénégal bi ab doublé la amal ca match boobe maanaam ñaari bit la amal ca match boobee jamono ji nag mi ngi doxal Al googee bi ñu soppee coach ak tey jii maanaam bi ñu amee coach bu bees ak tey jii Sadio Mané bi ñu bëgg a gis la ñuy gis ndax mi ngi dugal di amal ay passes décisives kon jamono jii moo boot waa Al Nassr nañu ko ñaanal mu wëyal ci jaloore joojee journal bi tamit fàttewul équipe nationale bu Sénégal xam ngeen ne woote nañu ngir ñaari match yu ñu war a amal ci weeru octobre bii ñu nekk tey jii nag incha allah la ñuy door entrainement yi ngir waajal match bi ñu ci njëkk a amal Pape Bouna Thiaw mi tàggat équipe nationale bi nag ak adjoint bi mu àndal tey jii la ñuy door entraînement yi nañu leen ñaanal ñu doxal am ndam ci ñaari match yooye waaye journal bi tamit indi na ay leeral ci mbiru Ismaila Jakobs moom ay mbiram dafa lëndëm lool ndax dañ fi annoncé woon ne dafa am blessure maanaam dañoo xamle woon ne dafa am blessure ba ñu génne ko ci liste bi indi ko ko wuutu waaye football match ak waa gala Galatasaray waaye loole nag yàqul dara ci blessure am dafa am blessure ca omba maanaam ca genou ba lay yëg mitit dafa takk tànk bi démb football waaye kat waa Galatasaray jël nañu ndogal dañu koy opéré loolee moo lëndëmoon ci xelu askan wi loolu nag bokk na ci li tax ñu génne ko ci list bi ndax day opéré après moom Ismaila Jakobs nañu ko ñaanal bu amalee opération boobee ba noppi mu jaar yoon mu wéri balaa yàgg duggaat ci terrain yi doxal journal bi tamit ñëw na ci làmb ji ñëw na ci ëmma seen xam ngeen ne bu yàggul dara jàkkaarloo na fi ak muudu xarañ lu combat boobee sax revanche la woon ci la ëmm seen di wax par Eumeu Sène nee na combat boobee laata may sëgg di bëri ak Moodu xarañ loo xam naa ni damay daanu ñeenti fan maanaam quatre jours avant xam naa ni man mii su ma sëggee jàkkaarloo ak Moodu xarañ loo daf may daan loolee la Eumeu Sène xamle ñu jugee Sénégal wutali Portugal fekk fa oxogo wa Porto la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa ak ndam lu am solo li ñu am démb Sporting bu Braga lañ doon jàkkaarlool duma ko duma yu mitti ñaari bal ci dara ndam loolee nag waa Porto gone yi muy Pepe ak Galino ndax ñaari gone yi ñoo dugal tax waa Porto am ndam lu ama am solo jamono ji nag ñoo ngi doxal ca Liga NOS ba huitième journée ci la ñu toll waaye ba léegi nag Sporting moo jiitu ca Liga NOS ba huit match la jongante am ca huit ndam muy vingt quatre points bu dee waa Porto ñoom ñoo nekk ca ñaareelu place ba ñoom am nañu vingt et un bu dee waa Benfica ànd ak Ángel Di María ñoom ñoo nekk ca ñetteelu place ba ñoom seize points la ñu am. ñu jugee Portugal wutali France fekk fa l'équipe waa Paris rawatina ki leen Luis Enrique la journal bi fësal ca wu njëkk woo pas du tout compris kenn xamut lu muy niru waa Paris démb dañ doon jàkkaarloo ak Nice match boobee nag 1-1 la jeexee te juróomi fan ci ginnaaw waa pari fekki woon nañu waa Arsenal Arsenal gañe leen ñaari bal ci dara démb tamit kenn xàmmewut leen bi ñu jàkkaarloo ak Nice te ca pandaw ga dañoo témboo 1-1 Paris googee nag jamono ji mi jaaxal mi ngi bëgg a jaaxal waa France gépp ndax ñaari xar kanam la am Paris bi dooroon saison bi ak Paris bi ñuy gis jamono jii du benn ndax bi ñuy door saison bi ñoo ngi doon doxal di dugal ay bit waaye jamono jii moom am ndam mi ngi leen di bëgg a të loolee tax na sax première place su Ligue ba ñàkk nañu ko ginnaaw bi ñu footballee juróom-ñaari bëccëg maanaam septième journée ci la ñu toll Monaco moo jël pii am na dix-neuf points. Paris mi ci ñaareelu place bi ñoom am nañu 17 points bu dee waa olympique bu Marseille mi nekk ci ñetteelu place bi ñoom jamono ji 14 points la ñu am waaye jamono ji moom waa Paris kenn xàmmewul leen. ñu jugee France wutali Londres Angleterre fekk fa Mirror Sport waa Manchester United le journal bi fësal ca wu njëkk wa rawatina ki leen di tàggat di Eric Ten ak Marcus Rashford mi nga xam ne club boobee dañu ko yaakaar lool te ay bitam néew moom mii di Eric Ten Hag démb jàkkaarloo ak Aston Villa dañoo témboo 0-0 waaye démb mën Manchester United kenn xàmmewul leen doxuñu doxluwuñu loole tax na nag ëllëgug Erik ten Hag mi ngi wéy di taq suuf ci club boobee waaye file ak suba incha allahu rabbi mën nañu caa am ay xibaar yu wér te wóor ndax tey jii dirigeant yi ak kenn ci njiit yi muy Jim Ratcliffe mi nga xam ne daf ci am ay paar dinañu toog waxtaanee ëllëgug Erik ten Hag xool ba xam lan lañ ciy dogal waaye daal file ak suba moom ay xabaar yu wérte wur mën na génn ci doomu pays bii di Eric Ten waaye mbir moomee dinañ leen ko toppal incha allah jamono ji nag doxuñu ndax football nañu juróom-ñaari match ca Premier League ba jamono ji huit point képp la ñu am ñoom waa Manchester United te bu ñu xoolee tamit seenub attaque li ñuy dugal ci ay bit néew na lool benn club képp la ñu ëpp ay bit muy Southampton mi yéeg ren jii Southampton dugal na Premier League ba bu dee waa Manchester United ñoom ginnaaw bi ñu jongantee septième journée cinq bit képp lañu dugal kon ñooy avant dernier club bi nga xam ne moo gën a néew lu muy dugal ay bit kon nag Eric Ten war naa gaaw yeewu balaa làmbaay di ñaaw file ak suba sax njiitu club bi mën naa am ñu jël ay ndogal ci moom journal bi tamit ñëw na ci match bi doon ndox ci diggante ngam Forest ak Chelsea match bu tàngoon lool la nag 1-1 la jeexe waaye match bi mitti woon na bëri woon na ay coow li ko waral moo di waa Nottingham Forest dañoo am carton rouge ca jamono joojee nag dañu doon rey temps bi di yàq di def lu leen neex waaye bi ñu doxalee ba ci kanam seen gone gi ñu naan Neco Williams bokkul nag ak Nico kii Neco Williams la tudd moom moo amal jëf ju ñaaw ca match boobee ndax dafa buux Cucurella maanaam da ko puus mu daanu ci Enzo Maresca ca jamono joojee nag coow li mitti na lool carton jaune yu bari génn na ca match boobee ba ci Nicolas Jackson mi nga xam ne dañ ko remplacé woon maanaam dañ koo génne woon mu toog ci banc bi bokkoon na ca coow loolee ca ci pandaw gi nag match bi 1-1 la jeexee. ñu jugee Londres Angleterre wutali Italie wàcc Rome fekk fa Corriere dello Sport waa Juve bu Thiago Motta la journal bi fësal ca xët wu njëkk wo Juve ànd ak Thiago Motta nag démb dañoo def match nul ak waa Cagliari match bi 1-1 la jeexee yuufe nag mi ngi bëgg a bëri ay nul. li ko waral moo di kat football nañu septième journée ñeenti match nil la ñu am maanaam juróom-ñaari match la ñu jongante ñeenti yoon a ngi nii ñoo ngi témboo démb ci mujj Cagliari lañ doon jàkkaar lool match bi 1-1 la jeexee Vlahovic nag dugal na ca match boobee waaye bit boobee mu dugal doyul match boobu nag am na ay xew-xew yu ca am yo xaw a naqari ndax doomu Portugal bi ñu naan Conceição dafa am carton rouge ca match boobee bu dee waa Lazio moom démb doxantu nañu ci kanamu Empoli ñaari bal lañ ko gañee naam Empoli moo njëkk a dugal waaye kat waa Lazio de Rome dañoo fippu remonté leen gagné leen ñaari bal ci benn match boobee nag kenn du ca doomu Espagne bii di Pedro Pedro ay jamono nekkoon na ca Barcelone démb moo dugal bit bi tax Lazio de Rome am ndam jamono ji ñoo nga ca ñeenteelu place ba muy waa Lazio de ànd ak Boulaye Dia ñu jógee Corriere dello Sport de Milan fekk fa la Gazzetta dello Sport waa AC Milan bu Fonseca le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa démb Fiorentina lañ doon jàkkaarlool dañoo nërmelu nag ñaari bal ci benn match bi nag mitti woon na lool te bëri ay xew-xew yu ca am ndax waa AC Milan am nañu ñaari penalti ca match boobee waaye doomu Espagne bi ñu naan David De Gea ñaari penalti la génne ca match boobee moom David De Gea nag miin ngeen miinoon ngeen ko lool ca Manchester United jamono jii mooy góolul Fiorentina ñaari penalti la génne ca match boobee waaye tamit waa AC Milan am nañu ab penalty raté ko waaye match boobee bi mu jeexee Fonseca mi di tàggat dafa mer ba futu nee na penalty yi ki ko waroon dóor du kenn ku dul Christian Pulisic gaa ñi di ko xëccoo ba ca njëkk am nag ki ko dóor moo di Théo Hernandez raté ko ñaareel bi tami Abraham dóor ko moom Tammy Abraham it dafa raté penalty wam boobee bu dee waa Fiorentina ñoom tamit am nañu penanti teg ko dóor ko Mike Maignan génne ko kon nag match bi bëri woon na ay penalty lool bu dee waa AC Milan moom ki leen di tàggat di Fonseca dafa mer ba futu nee na gaañi dañu doon xëccoo penalty yi loolu naqari na ko lool jamono jii nag doxalo ci Serie A ndax bu ñu xoolee ñoo nga ci juróom benneelu place ba maanaam sixième place ba Napoli mi jël pay juróomi poñ la leen rawee ñoom waa AC Milan bu dee waa Inter ànd ak Inzaghi moom raamaat nañu tuuti ñëw ndax ñoo nga ca ñaareelu palace ba ñaari poñ képp la leen Napoli rawee muy waa ak Lautaro Martinez ñu jugee ñu jóge Italie wutali Espagne wàcc Madrid fekk fa Marca yéenekaay xarbaxaal la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa mu sëngéem ndax doomu Espagne bi blessure bu metti lool la am journal bi nee na ko nag waa Real de Madrid ñoo ngi lay xaar moom blessure bi mu am dafa metti lool ñetti ligament la am dina toog at du ko football waaye kat waa Real de Madrid kóolute gi ñu am ci moom dañu ko dëggal ndax yokk na contrat ba atum deux mille vingt six moom dañuy xarbaxaal waaye loolee nag tax na. Real de Madrid mercato bii ñu dëgmal faw ñu dugg ci marché bi xool benn latéral bu mën li muy def ak benn ak central waaye nag lu mu gàtt gàtt moom dinañu am benn signature latéral lay doon wala défenseur central lay doon loolee ci sunu kanam la nekk waaye blessure bi xar am tax na faaw ñu dugg ci marché bi ngir wut ab jour loole la journal bii di Marca yéene kaay xamle bu dee Vinicius moom dafa am blessure bu xaw a métti ca mbagg ma maanaam ca épaule ba loolee tax na du dem ci équipe nationale bu Brésil wut nañu sax ku ko wuutu ki koy wuutu du kenn ku dul Andreas Pereira Andreas Pereira ma ngay football ca Fulham moom la ñu woo ngir mu remplacer Vinicius journal bi tamit ñëw na ci waa Atlético de Madrid ñoom démb dañoo defati mat nul seen diggante la woon ak Real Sociedad naam ñoo woon waaye kat ci ci pandaw ga Real Sociedad dafa égaliser ci bit bu rëy lool ki ko dugal mi ngi tudd Souček bit bu rëy la dugal tax Atlético de Madrid témboo ak Real Sociedad ñetti match moo ngi nii nag Atlético de Madrid munul am ndam ndax dafa taseeg Real de Madrid témboo ak moom fekki Benfica mu duma ko duma yu mitti démb mu jàkkaarloo ak Real Sociedad témboo ak ñoom. ñu jugee Marca yéenekaay jël AS yéenekaay moom it xarbaxaal la fësal ca xët wu njëkk wa nee na ko waa Real de Madrid ñoo ngi lay xaar ginnaaw bi mu amee blessure bu mitti lool ñetti ligament la am ca tànk ba moom xarbaxaal saison wam jeex na tàkk lu mu gàtt-gàtt daanaka dina toog dix mois maanaam fukki weer door a mën a duggaat ci terrain football waaye ca jamono joojee nag waa Real de Madrid siiwal nañu ne yokk nañu contrat ba atum deux mille vingt six loolee nag tax na Real de Madrid dina wuti ab latéral bu ñëw foofee jàppale ko jamono ji nag bu neexoon waa Real de Madrid ñu wuti jour boo xam ne agent libre la maanaam ko amul contrat xaatimal ko contrat mu nekk joker comme ni Barcelone def ak Chesney waaye Real de Madrid nee nañu yàkkamtiwuñu dara ci mbir moomee te kat doomu Espagne bi ñu naan Lucas Vázquez am nañu confiance ci moom maanaam wóolu nañu ko te paa bi di Carlo Ancelotti da koo gëm lool kon Lucas Vazquez moo fay nekkandeegum doxal bu ñu yeggee ci weeru janvier ñu wuti latéral bu baax ngir mu ñëw wuutu ko moom Carvajal mi nga xam ne saison wam jeex na tàkk ñu jugee Madrid wutali Barcelone fekk fa esport Robert Lewandowski le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa doomu poloñ bi démb moo boot waa Barcelone ci Deportivo Alavés la Barcelone demoon gagné ko ñetti bal ci dara bit yi am ca match boobe yépp nag Robert Lewandowski moo ko dugal waaye da caa ànd ak ndimbalu Rafinha ndax Rafinha moo ko doon jox bal yi muy dugal moom doomu Brésil bi waaye kenn du Robert Lewandowski démb ab triplé la amal ñu am ndam lu ama am solo jamono ji nag seen xel dal na ci dem gi ñuy dem ci trêve yi ndax équipe nationale yi ñoo woote Barcelone dem ay jouram dem nañu ca waaye ànd nañu ca ak xel mu dal waaye trêve bi bu jeexee ñetti match yu mitti mooy xaar ndax bu ñu dellu si waatee Barcelone war na jàkkaarloo ak Séville mu soxal liga e sport bu ca noppee war na jàkkaarloo ak Bayern de Munich mu soxal ligue des champions bu ñu ca noppee nag ca Santiago Bernabéu la ñu jëm classico le Real de Madrid la ñu war a jàkkaarlool kon bu trêve bi jeexee ñetti match yu mitti mi ngi xaar waa Barcelone waaye jamono ji moom seen xel dal na rawatina démb ndam lu am solo li ñu am ci kanamu Deportivo Alaves ànd ca ak Robert Lewandowski ñu jugee esport jël Mundo Deportivo wa Barcelone ak jaloore ji ñu amal démb la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa rawatina doomu Pologne bi journal bi sax super Lewandowski la ko tuddee ndax doomu Pologne bi démb ab triplé la amal attaquant bii nga xam ne mag la waaye mag mu mët a bàyyi cim réew la démb ànd na ak waa Barcelone am victoire bu décisif lool waaye tamit démb gis nañu solidité maanaam dimbalante ak jàppalante ci waa Barcelone ndax Deportivo Alaves fu ne def na fa bal bi défense bi taxaw ne leen du ngeen fi jamono ji toog nañu toogaay bu baax ci liga ba ngir waajal trêve bi waaye match boobee nag Ferran Torres yeggaliwu ko li ko waral moo di ab blessure kon fekki na liste bi maanaam ñi amoon blessure ca Barcelone am na ku ca ko muy Ferran Torres jamono ji nag dañuy pos liga bi match dootu ci am ba ci kanam équipe nationale yi ñoo woote waay jamono ji moom Barcelone moo jël pay am nañu vingt quatre points Real de Madrid nekk ca ñaareelu place ba am vingt et un points bu dee waa Atlético de Madrid ñoom ñoo nga